rijaal ci dun bi dem naam ki daal di bàyyi saal ko jaal ka fawxa rijaal ci dun bi dem naam duy géntu duy nax ñi ko wax maa dégg ñuy wax waay sëriñ Saaliw dem naa mu doon jaas madina am saas waaye dem du jaas yéen leen dem naam dem de bu doon jaas madina am saas waaye dem du jaas yéen leen dem naam nohin ma dundoon junni bu tooloon Adama sëncoon adduna dem na noohin ma dundoon junni bu Adama sëncoon adduna dem na yeneen ya dikkoon fii la romboon ñoom nañu tolloon ñoom ñépp dem na ka julli woon gi Cheikh Bamba lay laaj borom da muy ji dem na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu mbokk julli di mbokk taalibe yi di ñuy ñëpp ñi fi teew góor ak jigéen mag ak ndaw waaw ñi tàmbalee suñu kàddu di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne mooy xalif général de Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te di ñaanal sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou xaban di si xalifa sëñ Mandoumbe di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di ñaanal sama waajur bu baax wii Cheikh Mouhamadul Bachir mu sëñ Modou Xabbaan di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te moom mi nga xam ne moo ñu boole ci sëñ Touba boole ñu. do boole ñu ci sëñ Saliou Mbacke di tuddee sëñ Saliou Mbacke di ab cër bu mag kon nag ñoo ngi koy sant di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér liggéey bii nga xam ne moom lañ ci Cheikh Saliou mbakke jo muy ndigal lii nga moom lañ ci Cheikh Saliou Mbacke jox biñ ci amee ndigalam moom ñu ngi leen ñu ngi seedeel mbooloo mi ne ñu ngi seedeel mbooloo mi ne lépp luñ ci def rek jëm jëmmam moo tax ñu def ko ndax moom moo ñu kàttanal moo ñu dooleel muy sama baay mu sëñ Bassirou Mbackeem sëñ Modou Xabban di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te man de Saliou Mbacke am am ak fayam ndax mën naa ne man maa gën a tuuti man maa gën a tuuti ci njabootam gannaaw ci gën a doon ndaw kon bu demee ba Sëñ Cheikh boole ma ci loolu ak tawféex la waaw di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di soññ mbooloo mi nga xam ne àllarba lañ fi ñëwoon àllarba léegi ñu ngi fi àll àll àllarba ba léegi ñu fi tey la tey alxames liggéey baa ngi sori lool xam naa waa waa Ndakaar yi ñu ngi ci yoon yi ñëw ak seguñ xam naa bu soobee yàlla suba feek suba mbooloo mu bari daañ fanaan ci incha allahu rabbi di soññaat mbokk taalibe yi baax a baax a baax ñu nekk ci waar wi rek defee ko ni ko sëñ bëggee ja euh, dugub ji ñi dajale nag daa war a dem sa jaag bu mag ba jaag bu mag bële moo foofu fële ko programmé waaw mi ngi ci digg tool yi foofu lañ ko programme fa la war a dem. léegi la fa suñu xaadim suñu Cheikh Saliou jugee waaw jaag bi foofu lañ ko programme foofu lañ koy yóbbu xam naa buñ gontoo rek foofu lañ ko yóbbu incha allahu rabbi di ñaan mbokk taalibe yi ñi ñi ñi taxaw bu baax a baax gën a am passeef waaw te xam ne liggéey suñ Tuubaa moom mooy lépp liggéey suñ Tuubaa rek mooy lépp ndax moom moom moom rek moo fi maye dara waaw te gën a gën a gën a gën a gën a gën a sàmmaar suñu taalibe bu baax waaw te xam ne ak taalibe rek moo fi moo fi maye dara leneen mayu fi dara lu dul ak taalibe waaw gën a gën a gën a gën a gën gën a góorgóorluwaat bu baax ndax suuf si suuf si di xel koom euh, ngërëm yu bari dafay daje waaw ndax ñu baree bari fii lañ leen waajalee waaw fii li ñu am lépp fi lañ ko amee waaw kon nag mm, loolu moom képp ku yàgg ñëw xel koom xam nga ñu ngi ko daan sas kon kon kon kon kon kon ñi gën a góorgóorluwaat bu baax. gën a gën a gën a gën a gën a gën a gën a jaajuwaat bu baax gën a ama gën a amaat pasif bu baax a baax a baax taxaw ci liggéey bu baax di ñaanal bu baax a baax a baax Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal suñu Ibrahima Mbacke mi nga xam ne muy xalif suñu Modou Xabbaan suñu borom yàggal ko fi loolu te wér di ñaanal sëriñ Cheikh Saliou Mbacke mu yàgg fi loolu te wér barke sëriñ Tuubaa waaw di di di di di di ñaan képp ku fi teew suñu borom faj say aajo ci barke sëriñ Saliou Mbacke barke sëriñ Saliou ñu ngi ñaanal bu baax sëñ Saalix suñu borom dolli yokk leeram taas ñu si barkeem di ñaanal bu baax sëñ Mouhamadul Mountakha suñu borom dolli ko fi bàyyi moo ki rakkam yëpp di ñaanal sëñ Amdi Modou Mbend Fall suñu borom dolli ko fi bàyyi moo ki rakkam yëpp di ñaanal mboolem ñu toogi jotaay seexi Serigne Touba yi ak ñun taalibey Serigne Touba yi ak jullit ci àdduna bi yàlla na ñëpp am jàmm barkeb Serigne Saalix euh, ñu ngi yëkkati suñu kàddu di wax bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ci ndigal sëriñ euh, Saalix Mbàkke mii ñu dendal ci xel Xelkom yi euh, mu jox ñu ndigal nag ngir ñu war a yëkkati ay kàddu ci mbokki taalibe yi day mel ni sax li mu wax doy na sëkk waaye ndigal moom bu xasee jib rek yow taalibe ba la la war mooy nga jëfe euh, moom sëñ Saalix nee na mu ngi ñaanal baax ki nga xam ne moo toogee xalifa sëriñ Mandumbe di sëñ Ibrahima Mbàkke di ñaanal baax waajuram wii nga xamante ne mooy Cheikh Mouhamadou Bachir Mbàkke nga xam ne nee na moom amul fayam ndax ndigal lii euh, ba ko sëñ Seex joxe rek jaarale ko ci moom da ko cee joxaat leneen ndigal moo waral moom itamit ndigal loolu mu ci am euh, tax mu doon loo xamante ne euh, lu rëy rëy rëy ci moom moo waral mu ngi ñaanal waajuróom wi di sëñ Mouhamadou Bachir Mbàkke suñ borom dolli ko fee bàyyi mu yàgg fi lool te mu ànd ko wér ndax moom euh, gis nañ cofeel gi nga xam ne am na ko ci waajuram ba wax ju bari sax xëy na mënu ko ci moom ndax gis nañ heure bu yëkkatee kàddu rek ngir wax ci moom euh, tàmbalee tuuri xéewal kon loolu day mel ni taw feeq rek la ndax euh, ndigal dafa am solo jëf lu baax am na solo lool waaye nag nga jëlee ko ci ndigal dafa ëppati solo te sëñ Saalix mi ku ne xam na ne am na ndigal ndax ñun ñii ànd ak moom ndigal rek lañ ko toppee kon nag ñuy soññaat mbokki jullit yi di mbokki taalibe yi. Euh, ñu gën a farlu ci tooli Xelkom yi loolu de mooy ndigali sëñ Saalix mi te ci sëñ Seex Mbàkke la bàyyi ko jaar ci waajuram Seex Mouhamadul Bachir ñëw ci moom mii mu ànd kook mbokkam yu baax yëpp euh, di njabootu sëñ ma Ndumbe xaban di leen ñaanal moo moom mi mii sëñ Saalix di ñaanal mbokkam yëpp euh, fan wu gudd ak wér yaram di leen ñaanal la nga xamante ne moom la sëñ sëñ Saalix Mbàkke di fey képp koo xam ne mës na koo liggéeyal bu ci bàyyi mboolem njaboot gi yëpp. di ko ñaanal taalibe yi nga xamante ne bàyyi ko nañ fu ne ci àdduna bi ñëw fii ci xel Xelkom wuy si ko euh, sëñ Saalix daal ci gàttal maanaam mu ngi sant mbokki taalibe yëpp di wax ne suufus Xelkom nag euh, suñ borom moo ko barkeel barkeel googu mu ko barkeel nag moo waral euh, sëriñ Saalix di ko woote nit ñi di ko fekk si fii. lu sëñ Saalix dem ba ne su fekkonte ne wóor na ko ni ñëpp ñëw nañ xel Xelkom mu bàyyi ko woote. kon loolu lu rëy rëy rëy la kon di ci soññaat ñëpp muy mel ni euh, liggéey bi tàmbali nañ ko euh, euh, tàmbali woon nañ ko ca altine ja nekk ca baas ya xayma yi nekk ci waa station bi waaye day mel ni fi ne nii ñu ngi ci dëgg dëgg liggéey bi am na mbokki taalibe yu war a bàyyi ko Ndakaaru ak fu nekk ci àdduna bi di ñëw jàpp nañ ne tey jii bu yeggul it suba ci gaaw bi dina mat incha allahu rabbi muy mel ni jaag bii ngeen gis mu nekk suñ gannaaw. Euh, Serigne Cheikh euh, taawam bi ñëw na fi di sëñ Xaadim Mbàkke di ku baax macha allah euh, ñëw na fi ci suba fekk si rakkam ji di taalibeem ñëw indil ko leneen ndigal ne na jaag bi jóge fii dem ca jaag bu mag ba ca biir muy mel ni ndigal loolu mbokki taalibe yëpp dégg nañ ko comme ni ko sëñ saali waxee incha allahu rabbi daanu ko fas yenee defe noonu ndax murit moom li ko war mooy ndigal to ndigal rek ci la ñu fas yéene tënku ci la ñu fas yéene ànd ak sëñ Saliou mii to wax dëgg yàlla ba ñu dalee ànd ak moom ba léegi ci ndigal rek la tënku kon alhamdulilahi rabil alamina muy mel ni nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci dëgg-dëgg liggéey bi di koom di ko fonkloowaat mboole mbokku taalibe yi ñun nag dañu fay ñëw ci turu xel koom ñaq ak bernde euh, ba ñu àndeek moom liggéey bi itam ba tey mel na ni euh, gis nañ ci ak yokkute yokkute biñ ci gis mooy Euh, lépp dañ koy delloo siwaat rek ci baatu ndigal li ndax ndigal dafa neex ba ñu ànd moom ba tey gisuñu ci benn yoon euh, deltu ginnaaw euh, kon foofu rek lañ ciy yem incha allahu rabbi di xel koom ñaq ak bernde képp koo xamante ne maanaam bokkagoo ci fexeel nga adresse fii ci xel koom sëñ Saliou nag mu ngi sant bu baax jëwriñam sëriñam sëriñ Seex mu sëriñ Saalix amul fayam ndax liggéey liggéey am na solo lool waaye ñu liggéey loola moo ëpp solo euh, te ku mel ni Serigne Cheikh Saleh liggéey loola loolu yombul moom liggéey boobu bég na ci kontaan na ci ndax ba mu ko jàppee ba tey yokkute rek la ci gis kon mu ngi sant Serigne Cheikh Saleh cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem xam naa ni mu ma waxee mën a waxee noonu sax mënuma ko lu ci euh, jub rek ñu ngi koy sant yàlla suñu borom lépp loo xam ne euh, manqué na ci. ci jëmm ju xeebu ji la muy ndongo lu xamul dara te leeral ñu ngi jégalu baax di wàcce foofu kàddu yi di wax alhamdulilahi rabbil alamina kuy jooru joorul kuy daanu daanul jooyit xaacul waay sëriñ Saliw dem na adduna beewet adduna beewet bele beet ku yóbbu konti te bañete faat far waxtu wey naam yàlla la muy waaj yàgg na ko waaj na ñépp jóg waaj ragal ko jot naam Seex Saaliwu dem moo gaañ fun jëm ndegam dañuy dem foogu ko war naam moom de sax mëni su ko wax Mbàkke danoo nax waay ña daa jaar romb faktaar xuus na ci biir ba jàll dem na xam-xam ba lay jooy amba galaay jooy am tab galaay jooy sëriñ Saliou dem naam xam nga balaay jooy am baax galaay jooy am tab galaay dem naam kii du denc ci poos ku dikkam saas ay saa kuley mbuur mbuus mooy bamba dem ñu ngi siyaar mbokki yëpp mbokki jullit yi ak mbokki taalibe di santati bu baax Sëriñ Tuubaa moom mi ñu tawféexal ba agsi ci dëkk bu sell dëkk dëkk bu tedd bi di koom di wax ci eh, turu Serigne Saliou mi nga xam ne sunu lépp la ñoo bokk lépp te bokk gën bokk lépp ci leenu sëñ bi taw fee xale ba ñu agsi ci jataay bi te am ci yéenay liggéeyal sëñ Tuubaa te jataay la bopp boo xam ne nii képp ku ko teewe jàpp naa ne bokk na ci jataay yi gën a ëpp njëriñ ci ak dundu doomu aadama ndax gis gëm naa ne liggéeyal Sëñ Tuubaa moom ginnaaw farata yi amul lu ko ëpp ak fay fa yàlla di sant yàlla bu baax bi ñu mayee jataay bi ñu teewe ko tey ñaan képp ku fi teew yéene joo fi indaale ak jëf joo fi indaale saa borom fay la te dool la ay tawfeex bañ teew ko ay déwén déwén déwén di sant Serigne Saliou mii mi nga xam ne nii moom lanu bokkal sëriñ bi te mooy jëwriñ jotaay bi nekkal ñu fi nekkal fi sëñ Modou Xabaan di xalifab suñu waajur nekkal fi sëñ ba sëñ moom sëñ Modou Xabaan di suñu waajur ñu ñuy jotal sax ne nañ ko santal sëñ bi waaye sant gi lott nañ ci lool ndax ki nga xam ne nii dafa laa defal lu jomm say moroom defal la loo xam ne nii dafa jomm boroomi nelaw kooka booy wax ci moom wala nga koy jotal ak cant cant ga fa muy toll ci sa xol looy mën a génn ci aw làmmiñ waaye sant nañu yàlla bu baax li ñu boole boole ci Serigne Touba jaarale ko ci suñ Bass moom Sëñ Modou Xabaan Sëñ Bass moomu it tawféexam ak liggéeyam moo yaatu tey jii ba agsi ba agsi ci sëriñ Saalihu mii bañ dimbali lañu ci ñun bañ mën a fekk jataay bii ndax am na lu tuuti luñ ci mën a nett ci loo xam ne nii luñ fekk la ci digganteem ak sëriñ Saalihu bis dañoo ñëw foofu ci kër sëriñ Saalihu doon ko siyaar si fekk mu toog ci mbaaxam googu ñu koy indil ab kaamil boo xam ne nii genn góor bu jóge woon gànnaar dafa jàppoon ne mbindum sëriñ bi la mbindum ku tedd ki mu indil ko sëñ bas bëgg mu jotal ko sëriñ saalihu bi góor googu agsee ba jox sëñ bas kaamil bi ñu ànd fajar teel booba man mii su ma jumun maa ngi ci jotaay ba ñu agsee ba jox ba yët kaamil bi sëriñ bi sëriñ bi daal koy ubbi daan ne moom di tuwaar kar la macha allah xool kaamil bi ubbi ko jàng jàng jàng ba ci yàgg mu ne ah lii de moom du mbindum ku baax ki sax waaye lenn ci mag ñi àndoon ak ku baax la waaye lenn laay jàngate ci wax jooju mooy ñoom buñ doon xool doomu aadama duñu xool lennam waaye dañ koy jéggi dañuy jéggi jëmmi doomu aadama ji toog di xool ay maamam ndax kaamil boobu lam ca wax ne lenn ci mag ñi àndoon ak ku baax ki la ràññeetle ga mën naa bañ a nekk ràññeetle ak mbind mi waaye ràññeetle ak pas-pas gi ñu amoon ci seen digganteeg ñi daan liggéeyal sëriñ bi dañ dañ doon seenu royuwaay loolu laa jàngate ci mbir mi bu baax a baax a baax ginnaaw ba bi bi bi mu tëjee kaamil bi ba ba tëj ko ba jox ko ku ñuy wax euh, saalihu saalihu damay fàtte sant wi moom la ko jox mu teg ko ne waaye ginnaaw ba dañuy waxtaan ci sëñ ma numbe fi saase bi ñu tuddee sëñ ma numbe rek bi sëñ ba sundee sëñ ma numbe di ko ci fàttali dara rek sëñ bi dafa jaay jël kaale gi taf ko ci kanam gi ko laa gis jëmmam ju sell ja njëkk a tuur xam ne royu waaye gim daan roy ci sëñ ma Manumbe ci pëseef pëseef ci liggéeyal sëriñ bi pëseef ci digganteem ak mbay pëseef booba noona sant nañ ci yàlla bu baax di ci santale sëriñ Saalihu mi yàlla di ci santale sëriñ Bas mu suñ Moodu Xaabaan yàlla ndax looloo tey ba agsi ci sëñ Bas ba agsi ci sëñ mi di yàlla suñ borom Cheikh Basirou moom sëñ Moodu Xaabaan yàlla suñ borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér sëriñ Saalihu mii nga xam ne nii mooy jëwriñ jataay bi jëwriñu liggéey bi yàlla suñu borom moom it yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne nii ñoom la àndal jataay bi di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Saalihu mi nga xam ne nii moo taw feexale liggéey bii mbokki taalibe yëpp yàlla suñu borom def ci dundam gi kéemaan kéemaan goo xam ne nii dana fi yàgg te ànd ak wér ba lu bàyyi ba bàyyam bu baax ba naaloon ci mbooleem xeeti jëfi lislaam yeeg liggéeyu lislaam bi mu matale ko te ànd ko mbokki taalibe yëpp xol bu sedd nag xol bu yaatu bu tuuru ci mbégte ak ci tawféex moom la ñuy waxee ba li ñuy wax sax amaana mën naa nekk mën naa bañ a nekk wax ju nit di xam waaye wax yéene la ak pas-pas te wax ji lépp sant la ak dollee ñaax suñu bopp dollee ñaax taalibe yépp di wane ne liggéey bii mooy liggéey bi nga xam ne nii ci la nit mën a àgg amee loo xam ne nii ëllëg buñ ko ko fayee day rus te sëñ Saliou Saliou mi ngeen ko àndal ñoo ko féete ci mag waaye mënul féete ci mag ndax kii la féete ci mag ci pas-pas la lay féetee ci mag ndax ay at du dara ndax distance ba nekk fa seen boroom amul espace amul temps comme amul espace amul temps nag pas-pas doo nga fay dox pas-pas nag bu la ëpp bu la ko nit ëppalee mën naa nekk sa mag mën naa nekk sa jëwriñ loolu nag ñu ngi koy sant bu baax di ko ci ñaanal yàlla di ci ñaanal bépp taale boo xam ne nii indi nga fi sa xéewal indaale indaale fi sa doole indaale fi sa yéene saa borom fay la ko ci barkeb Serigne Salihu ci barkeb Cheikh Serigne Cheikh moom Serigne Salihu ci barkeb suñu waajur Serigne Bass moom suñu Mor Xabaan di ko di ñaanal mbokki taalibe yëpp ñu am tawféex ak ku yàgg ak ku wér ak xéewal yu yaatu yoo xam ne nii at mu jot ñu koy gën a mën di ko gën a teewe dem ànd ak tawféexi Serigne bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom mu dolli ñu tawféex bu baax. ji mooy jooy kaamil bi mooy jooy am dëkk bey jooy kii jooy ko war naam farata yaay jooy am sunna yaay jooy man doo ba ngay jooy seen waaja dem naam makka da ngay jooy madina day lislaam a ngay jooy dem naam kii lim def ci lislaam jommal na saamaam oo niru maam daam ak dëgg naam sëriñ saaliw doo dàqe yaa raw yow mbàkke doo adduna yaa xew

ëttam ba day jooy xayam nga day jooy kuy nit ku baax jooy ku yiw ka dem naam si gilla lislaam ba Makka farlu Sëriñ Saaliw moomoom Tuuba te dem naam nim def jumaa ji te mustalaa ji corniche mu baaje te lii ñëw naam sigil na baayam sigil na waayam sigil ñéppam dem ñëw na dem na moom dongay raam nga defi soppeem taal xuraan moom saaram yu xam na ki dal na ca xel koom sëriñ si bun miim sëriñ saaliw jikkoom nit am koy wéy ki dongoom bu yalwaan daanari caaxaan daaraam ya ñoo daan seen ñam ya neex naan ci tooli xel koom gaaña dañoo luum waaye bu leen juum ba ñibbi ñaaw naan saaliwu xel koom seex mbàkke xel koom donga bu leen luum seex mbàkke ñëw naan jooy ku ci bëtam tooy xam leen ne war naam ku ci jooy jëmmam ja ngay ku ci bëtam tooy xam leen ne war naam kaweesu fi sax danaa jooy wuy sama ay booy sëriñ Saaliw dem naa njàpp ndalay jooy am jururay jooy laa jël jooy seen waaj dem naa ngi jaana jooy jibi jooy am ñaaru mooy jooy seen sang dem naa ku dem ba ñaaru ragal xaaro a waaro xaril ma dem naa yéen gaay xabbaan seen kilifa daan lekk leen te naan sëriñ Saliw bég maa fekk got jooy sikar di laay laay ñi ñàkk seen waay yaaram ba dem naa kii di sëriñ Cheikh yal nay mbiram baax bam niru maam Cheikh Bamba naam say rakk laay ñaan bi aqi rahman ñu dundu kéemaan yàgg mi naam ki daal di baay saal ñi weesu ka faw xarit ci dun bi dem naam ki daal di ñu ngi leen nuyuwaat baax leen siyaaraat baax. di wax ne jërëjëf sëriñ Tuubaa jaaraama sëriñ Ibrahima Fall ñu ngi santaat sëriñ Saliou bu baax lii lépp si liggéey sëriñ Saliou la sëriñ Saliou rek moo tax ñuy jëf jëf jii nii te di ko xeeb nag bokk ànd ak suñu sang bi mi sëriñ Saliou Mbacke mii nga xam ne moom nañ fekkis bi mu doon ku baax ku am kóllëre doon ku gore tamit doon ko bëgg euh, sëriñ Tuubaa lool sax liggéeye xel xam gi ñor ko lool bis buñ ko jàppee rek dara du yitteem lu ah, soññee si xel xam bi kon dañ koy santaat bu baax a baax a baax a baax di wax ne ñun ay dongaam nan ay taalibeem nan ñu ñun waa euh, dakaar Touba Thiaroye Sam-Sam euh, di ziar baax jëwriñ Alioune Seye ñoom Baye Sall ak euh, ñoom sëñ Mabileeg ñoom baay Laat ñëpp rek ñoo ngi leen di ziar ñoom sëñ Saliou Niang ak ak soxna ñun àndal ak ñëpp rek ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di leen joxal seen wàccuwaay ndax xam ne ay ndaw nan di sàkku sa sëriñ bi mu ñaanal mbooloo mi bu baax ñu yokk ndax ñun ah, bëgguñu kenn ku dul sëriñ Tuubaa lii nga xamante ni sëriñ bi defal na ko ah, donga yi nga xamante ni ñooy jël ay biis di koy sasoo ñi ñëw si liggéey bi sëriñ Saalu mi mate na ko sëkk ñoo la koy ñaan nga ñaanal mbooloo mi balaay déwén kenn ku ne yokk yokk ba xamante ni ah, waxuma la sax jël kenn ni rek mooy fay oro bi ñi si des sasoo leneen a leneen moo xam ne sëriñ bi bu ñu fiy ñëw di koy siyaar si kenn ku ne dina jàpp si benn côté boo xamante ni dina oyof tooy si sëriñ bi boo xam ne li ciy dem lépp ñun waa Dakar am nañu yéene defal defal ko ko boo xam ne moom daanaka sax xelam day dal bu baax du daanaka du si sonn yéen sonn yooyu noonu yéen a jooju na am te mbokk taalibe yéen a jooju na am ñoom ñu bëgg Serigne Saliou ñoo fi ne ndax yaakaar naa si jamonoy Serigne Saliou nen nen gimbee xam liggéey Serigne Touba ndax euh, lu Serigne Saliou waxoon jox leen ma ndaw ñu ma def lu Serigne Bamba defoon ci euh, jox leen ma lu Serigne Bamba defoon ci mag ñi loolu yaakaar naa Serigne Saliou mate na ko sëkk mate na ko sëkk ndax tamit ne bu ngeen demee bu ngeen jiitoo ma topp seen ginnaaw bu ngeen demee ba gisatuma ma wàññeeku nekk xaar leen yaakaar naa kon Serigne Saliou doxin boobu noonu muy dox kon mooy borom jamono kon ñoo ngi santaat bu baax di gërëmaat di santaat Serigne bi bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi te wér mu yàgg jot ndigal li ñu yàgg ka ànd ak moom si barke Serigne Saliou ñoo ngi santaat ñëpp nag di gërëmaat ñëpp. mbokk taalibe ñu ngi leen nuyu bu baax. yéen waa Ndakaaru njiital sëñ Aliou Seye si njiital sëñ Moussa Kébé ak sëñ Aliou Seye ak sëñ Saliou ak Idda ak mbokk taalibe yëpp rek ku lim juum ak ñi ngeen àndal ñëpp ñu ngi leen nuyu euh, di leen wax dal leen ak jàmm ci xéewal yi ngeen indi ñëw def ko ci liggéey bi waaw dal bi nag seenu dal la ndax ñoo ñoo ñoo ko bokk rek waaw te sant nañ baax daal waaw xéewal yi bari na yaatu na lool lépp rek yàlla na ko yàlla ful te barkeel liggéey bi te sëñ bi nangul ñu barke barkeb Cheikh Saliou Mbacke waaw ñu ngi ñaan suñ borom defal ñu tawféex eh, saxaadatu daare ñi waaw ci barkeb borom Tuubaa waaw di soññ suñ bopp di leen soññaat bu baax eh, ci lëggeel sëriñ bi rek waaw moom rek moo fi des ci àdduna lëggeel sëñ tubaa rek nag li ñu fi dajale moom mooy lëggeel sëñ tubaa di soññaat suñ bopp di leen soññ ngeen góor góorlu ci bu baax te xam ne lëggéey bi moom ñu ngi ci ndax tool yi mi ngi sori lool bët ki démb lañ ñëwoon ci xel koom ci dal mi ñu ngi fi barki dem ba léegi ñu ngi xel koom ñu ngi ci liggéey bi liggéey baa ngi sori lool xam naa tey si tey jii si àjjuma ji ngeen di doog xam naa suba suba la suba la gaaw bu suba ak jàmm bu ñu xëyee rek ñi xëy bu ñu rek ñi ñi nekk si liggéey bi àggale lépp bi eh, yo yo jël jël jël dugub ji yóbbu ko sa jaag bu mag wa xam naa liggéey bi moom li si des bëreetut bu soobee Sëñ Tuubaa bu suba ak jàmm rek incha allahu rabbi incha allahu rabbi rafet nañ rafet nañ jot ne lépp dina mat incha allahu rabbi waaw di leen sant bu baax si taxawaay rafet yi di ñaan yàlla lu ngeen man ren rek bu déwénee ngeen man lu ko ëpp ci barke Serigne Saliou Mbacké waaw sant nañ bu baax a baax a baax waaw Serigne bi rek moom seenu fay yal na leen yàlla fay te ni ngeen ko ñaanee noonu rek yàlla nañ ko yal na suñ borom defee noonu ci barke Cheikh Saliou Mbacké waaw tey rafet nañ si njort bu baax a baax waaw. waaw biis ñaan moom ñaan ñaan ñaan gi yéen ñaan lépp biis moo ci gën a tuuti waaw na ngeen jàpp ne moom lu ngeen séntu rek ci lu baax séntu leen ko te ngeen xam ne dana ñëw incha allahu rabbi ndax ki ñuy jëfal moom am nag fay waaw ki ñuy lëggeel daal ku am fay la muy suñu Saliou Mbacke foofu suñuy kàddu rek waaw maa ngi ñaanal sama waajur suñ Basiru Mbàkkim suñ Muru Xabban mu yàgg fi lool te waaw maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ndax moom moo ma moo ma dimbali daal waaw di ñaanal sëñ Cheikh Saliou mi nga xam ne moom moo ñu jox liggéey bi di ko fi ñaanal mu yàgg fi lool te barke Cheikh Khadim jërë ngeen def. Ah, lii ngeen def nag yéen waa Sow du tey rek ngeen ko def seenub tàmbali ba Serigne Saliou tàmbalee ngeen ànd moom liggéey bi àndin ko ci àndinu rafet ànd ko ab yar ànd ko ki teggin ah Serigne dégg ngeen Serigne Saliou Mbacke nee na képp koo xam ne nii day liggéeyal Serigne Touba du ma la yërëm ndax daa xam pay ga kon yéen ñiy jëfit di ngeen xam ne wër na ma ne Serigne Touba dina leen fay kon Serigne bi du leen yërëm ci liggéeyal Serigne Touba te Serigne Touba rek la leen woo te Serigne Touba rek ngeen di wuy si kon Serigne Touba rek ngeen di gis jërë ngeen jëf.